kooro gay modum géej o oh, haj ibrahim gay tëgg ndëndëg sémmiñ neex benn naqari benn bu gay warul tay tay xel tay tay ji nag am na yaakaar tax na daldi nay taf ñëpp waxtu xëddam jot mu def comme dab donte bile bu yem la sept heures moo nga ca rajo ba boole ko di ñaan rek sunu borom mottali haj ibrahim moo am jom góorgóorlu na ci kooruk tey gile ba mi di jot tanggoro nangan bi tambale di tangal yaram wi bu énervé rek bir ba ko togn fa yengoti ku ko xool mu sippi la ko sëriñ sëriñ kay élément bi di jall xana dégloo ko serign <laughs> directeur xam nga rek jaara mo ma yónni marché quoi après mo plané ko ibrahim yow dag may ponto wala lan ba sante la liggéey gannaaw mo waxu jaar xana yow la jël supit sa soxna yaay clipam man kenn du ànd ak man da ñak fayda ah be xol xam nga lan damay wax rek ma dab ngay gannaaw ko haj ibrahim gaawal ci xaalis julli fan yëpp maa ngi lay tàkk foo ma dëgg dëgg sa tànk dg <laughs> eh, madame yaay sama cappali booy tàngal rek du baax <laughs> xam nga rek dafa am lu may xaar quoi mais grawul naa ko gérer madame Gaye nga ni xaaral dugg ci kër gi fekkaat la fi nga naan ma patata Ibrahim Kay, comme tey caaxaan génn na jubali bayal ba deux heures jot na moo nga ca jumaa ñu julli rek Haj Ibrahim tënk fa boppam ngir kooru tayam gi mat di këpp këppal rek léeg-léeg mu koj ko ci di tudd borom bi boole ko ay astaghfirullah yu limu noonu la nekkee ba tàkkusaan jot mu ànd ak mbooloo ma ca bayaal ba xalifatul muazzam ci tafsirul quraanul karim xaaj ibrahim nekk ca mbooloo ma naan eskay tey jii nag yàlla bëgg na ko 18 heures teg si simili tafsir ba jeex cheikh mohamadul maaxi téye ci loxo bi ah alaaji ibrahim naka koor ci de maa ngi ci de waaye sëriñ bi ma ci oh, maaxi yóbbu këram ndogu la noppee rek war nañu ànd ci final concours récital Coran prix Cheikh al Islam UDG naka ñu yegg rek ñoom ñëpp ci saal bi Xaaj Ibrahim tiim yu bakkane yi bakkan bi di xeeñte rek <laughs> di xool montre rek Cheikh Ali ban heure dix-neuf heures huit DG ci xel mi xam naa amul heure <laughs> Seyda Fatima ban heure a jot dix-neuf heures cinq déjà <laughs> bako bako bako li muy laaj lépp moo ngi takk montre mu xool gis aiguille bi taxaw ci seize heures Haj Ibrahim boolewu ci wax daa génn rek xooj ko ci ndox mi boo màndee di nga dox sa morom yu baax yëpp di dem ngay taxaw mës naa ko gis dañ toog tuuti rek no dugg a jëpp Haj Ibrahim gay ànd ak mbégte gëmewu ko xool bi fees tax mu daanu mel na ku xëm gaa gaañe jangat jangate nga bal ñu àq baal nañ ñëpp àq déwénati